ngi sant yàlla subhaana wa taala ñu may ñu fekkee tey teewee di ko ñaan duñ ko may yooyu ñu ko fekkee di ziar Sénégal yëpp di leen ñaanal ñu fekkee déwén wér man wax borom bo mën la li nga ci ñaan jàmm ci réew mi li nga ci jóor lépp xaj li nga ci di ñaan bëggante soppante ñu bàyyi bañante bi bàyyi xeex bi bàyyi jaay doole ñëpp dañu war a ànd bëggante soppante bu ko defee yàlla da leen yërëm ñaan nare ba baax ba nit ñi di dimbalante muy solidarité réew mi dafa réew mu ndóol réew mu xam ne dafa soxla ay doomam góor ak jigéen ànd dafa ko ndax réew mi waruñu boote ko kenn waruñu jëlee kenn waruñu taxaw kenn waruñu xeex kenn dañu war a ànd nag dëgg nag di jolli dëgg nag dëgg bañ benn noot kenn kéw dem kaso ndax sa xalaat kéw dem kaso ndax politicien nga wala adversaire politique nga donc nañ bàyyi affaire kaso yooyu dañ boole yi ñu ànd liggéey réew mi réew mi da ko soxla fi toll nii da ko soxla ay doomam réew mi amul doole dañ ko war a doole kon may ñaan réew jàmm fi jolli waaye nag dëgg dëgg jubal dëgg dëgg ñu bañ kenn doole dëgg rek di jëli dëgg yàlla yàlla ne dëgg di dox ci dëgg ndax yàlla jëm yërëm Sénégal jëm kanam